waaw euh, maam Diarra dafa ma laajoon bu am importance loo xam ne lii maanaam nii jamono ji yàqu ak ni gone yi mel mu ne boroom daaru ak ñu mel ne moom bu ñu fi nekkoon ndax loolu dana mën a am ma xamal ko ne ko loolu du mën a am ndax booba euh, da ngay jàngi alxuraan boo bindee ab kaamil soo ko ñëw ci daara ji muritu nga xam ne fii ci dëkk bi ku mel ne sëñ Mor Xari Sill dafa bindub kaamil soog a dikk jébbalu si laxasaayu sëñ Mor Jóob Sill da koo def sëñ Soosa Njaay da koo def Musaa Kat da koo def Madu Gay Faati Ali da koo def sëñ Balla Gay da koo def ñooñu ñëpp ku ci ne bi ngay jébbalu si di laxasaayu ci borom daaru da ngaa indaale sa kaamil wala sa ñaareelu kaamil soog a laxasaayu léegi nag jamono ji dafa soppiku soppiku koo xam ne gii daal dafa doy waar liñ doon bañ lépp. li mag ñi doon bañ lépp ci seen digganteeg euh, tubaab yi ngir bañ ñu yàq nit ñi loola dañoo nekk ba mag ñi dem ñu dellu ko yeesal léegi kenn ku ne euh, ñi fi nekkoon seeni baay muritu kenn ku ci nekk sa doom du dem ci daara kenn ci kuy fab sa doom di ko yóbbu ci daara su ne juneen nga dugal école su école bu yàqee nga ne ko jàngil maçon wala jàngil menuisier boo gisee chômeur bu bari bii bépp looloo ko indi jàngaluñu leen dem ca tool ya jàngaluñ leen dem ruuji jàngaluñ leen lenn li leen jàngal da nga koy jàngal tubaab mu am defem génn munta am place mu dem defi maçon wala mu dem ministre métallique amul fond bu mu ko déparé walla nga yóbbu ko mu jàngi tubaab ba nekk bachelier ba am licence wala master amutub liggéey dootu la nangoo liggéeyal ndax jàngu tubaab bi liggéey yu bari xeeb na ko ndax jàngu tubaab bi ndax li mu am master rus naa taxawit ci kenn ne ko dimbale ma ndax jàngu tubaab bi loolu nag moo indi yàqute gone yi kenn yàqu leen waajur yee leen yàq waaw buñ fekkoon na ngaa def na njàngum alxuraan nga xam ne boo wéeree sëb jukki dangay dem ca tool ya ñu sas la nga bay ko ba timis jot nga soog a dikk ñu taal jàng bi nga jàng euh, timis su njëlee ñu yee la nga jàng njël bu fajaree nga dem ca tool ya loola kon da da nga mën a léegi waaye gone tuwaab gi kiy jàngaloo tubaab moom da koy préparer ndékki li préparel ko ay dàll yu muy sol préparel ko leneen lu mu sol waaw su ko defee gone gi ci loolu la yaru ba doon mag ba am licence su amee licence nag amutub liggéey daan na leen di xeeb yéen seenub liggéey dootu nangoo bay dootu nangoo fori ga tax dootu nangoo gori xer dootu na nga dara loolu moo xew ci jamono ji léegi moo yàq ñëpp waaye jiital waa kër gi ni bàyyi bàyyi Omar Diop defoon jiital waa këram ñëpp fekk ceerno ma Manaan ga ca Tuubaa ne ko waa kër gaa ngi nii jébbal naa la leen nga xam ne bàyyi Omar Diop ba ni mu faatu mu sa dellu forbot loolu lu jafe la loolu la moo amatul léegi léegi jiital gone yi sax naa ko kaay wuti kaay ma yóbbul ci sëñ ba nga jébbalu amut waaw doo toppatoo sax loolu toppatoo suñ sax loolu loolu nag moo tax njaboot gi léegi ñu wëlbatiku waaye ku ci dem ci daara muritu ba sëñ ba wàcce la doo tala dem di manifesté doo tala dem di yàq yi fi jàmbur doo tala di sàcc waaw looloo loolu moo yàq jamono ji euh, rawatina nag suñ dëkk bopp bi mooy Touba Touba boo seetee ñi fi cosaanoowul li fi nekk ci ay pël ak i alpulaar mën nañoo duubal ci ñi fi cosaanoo li fi nekk ci ay séréer ak i soose mën nañoo duubal ci ñooñu ñëpp nga xam ne kenn mënatu ko contrôler léegi nde bu fekkonte ne ña fa nekk mooy ñi fi sëñ bi bàyyi woon ak ñu toppoon sëñ bi ba sëñ bi di ko Touba ñu sanc seen i kër ñooñu dara du ci am waaye nag dafa doon dëkk boo xam ne bii ñëpp dañoo daal di wàll si ñëpp dañoo daal di wàll si daal di dikk toog di def lu war ak lu waru àgg na foo xam ne bii kenn mënatu ko contrôler ndax ëpp na dëkk ab département la léegi Touba ci boppam ab département la ab dëkk nga mën a contrôler wala ab arrondissement waaye ab département kenn mënu koo contrôler looloo ci am loolu nag moo moo moo bari léegi ah. ñii sëriñ bi leen faa bàyyi woon seeni waajur ñu toog fa mënatuñoo dem ñu toog fa mooy dëkk yooyu ngay dégg mooy Gédéeg Kër Ñang ak mooy yooyu ngay dégg Njenneeg Baay Faal ak mooy yooyu ngay dégg waaye ñi nga xam ne nag dañoo dikk nag mën nañoo duubal ci ñooñu nga xam ne ñoom bokkuñu woon ci yoon wi seen baay bokku ci woon seen maam bokku ci woon neex naa liggéey wala mu neex a wute rek nga ñëw wut fi soo amee nag daal di mënum lëmm daal di bokk nag ci waa Touba waaw bu waxee rek nga ne sëñ Touba amul morom ci. te bu sëñ Tuubaa santaane doo ci def dara li muy tere doo ci def dara lii day moo waral yàqute gone yi moo waral yàqute jamono ji kenn ci sa doom du jóg ba nga ko ne kenn ci sa doom du jóg ba nga ko bu ma la gis ci ndaje ma waaw manifestation yi ñu ci faatu ñépp dama leen ñaar la ku dëgër bopp ak ku amuti waajur ak ku të waaw waaye nit ki ngay manifestel te doo ci gis rakkam doo ci gis doomam doo ci gisub jarbaatam jabaram du jiitu Ah, ndeyam du jiitu ab jigéenam du jiitu ah te nga ne nañ jaay bakkan yow nga dem jaayal ko sa bakkan bokk bi yëpp mu dugal leen ci biir ah, anam ñi jëfaatu dañuy fab dara rek ne la sigi leen ko ndigaale ah, ñi ko waral sax dañuy dem seeti ko rek jaal ne maa ngi leen koy jaal xamuñu ko sax dañoo war ay téye gone yi te yar xale xale yi waaw boo ci dee woote lef da xool ba gis kookal na jabaram dafa jiitu man de bala malaa laa manifestel sa jabar day jiitu sa doom jiitu sa rakk jiitu wala sa mag jiitu wala sa jarbaat waaye doo dem ci benn hôpital seeti ku gaañu bañ ne kii leader bi moo moog leader bokk ndey wala kii doomama wala kii soxnaama wala kii ab goroma doo ko dégg ci kenn du ci opposition bi du ci pouvoir bi kenn du ci dee ñu ne do do do doomi leader baa dee ñuy manifester wala jarbaat baa dee wala soxnaama soxnaama dee doo ko dégg fenn mosu leen ko dégg ba àddina solo ba fi mu nekk. 68 la garab bi tàmbali woon ba nëgëni sii ñu di ay nit di ci faatu waaye mosoo dégg kenn ci koo xam ne kii dañ ne kii kat doomi doomi doomi président be wala kii doomi opposition be wala kii ab ma wala kii ma wala kii soxnaama waaw kon nag yéen am leen fu lay téye seen doom yi waaw waaw denc nga say doom denc say jarbaat denc say rakk denc say jabar bëgg nag jabar yi jaambur yi ak jarbaati jaambur yi ak jigéen yi jaambur yi jiitu di faat seen bakkan loolu kenn waru koo nangu ku am fayda kenn du ko nangu waaw te lëf li jëmul àllaaxira fii ci àdduna bii rek la yem ku ci dee sax damay wax ne boo demee xawma looy lay lu sabab sa dee gi damaa xamul noo koy laye waaw ak lu jeexal sa dund gi waaw loolu daal la demee maa ngi leen di nuyu di leen sant wasalaam